Euh, ci euh, émission bi euh, ñëw ak yéen ci label 221 ànd ci ak soxna Maymouna madame Guèye madame Guèye n'ak la ñu mu né ci filière oignon bu Sénégal comme chaque année n'ak début du mois d'avril, état bi dafa naan ah nañu taxaw parce que n'ak vraiment li nga xamantene bi importation oignon bi dañu koy taxawal pour ñu permettre ñi nga xamantene bi soble mbay mi fi ne nga xamantene bi sénégalais yang koy bay bu baaxa ba près de 400 000 tonnes mu ngi koy wax euh, donc prévoir nañ ko euh, ci 2016 2017 bi marché oignon bi nag euh, de plus en plus daal vraiment ma ngay wéy di daal di def ay mbir yu extraordinaire mbokk yi ñu xool lan nañu ci may indi dellu si waat mën a yaatal waxtaan bi ci plateau bi jaaykat bi ñu ngi ko fekk muy tànn soble yu yàqu yu nekk ci saaku yi naaj bi ak dencin bu baaxul bi mooy indi soble mbay mi di gaaw a yàqu ci gis-gisam bu yàggee fii day yàqu rek gis nga ko nii ñu ko sotti tànn ko loolu mooy bon bon bi yëpp dañu koy mujj tuuri. ginnaaw ba nguur gi jëlee dogal ni soble tubaab bi dootul duggati ci réew mi soble ak pomme de bi ñuy bàyyi fii ci Sénégal bari na fi lool waaye nag njaay mi moom doxagul li ko waral moo di. soo tubaab bi daa bëri daa bëri fii soble mbay bi ñor na fekk ko fi léegi ne prix yi normal prix bi war na jot deux cent cinq wala deux cent vingt cinq ñu ngi koy jëndee cent léegi yàq na prix sotoi bi yàq na prix bii nga xam ne moom bi ñor léegi ba léegi kenn jëndu ko day yàq lu bëri bii nii moom doxagul moom instant nii balaa muy gën a dox daal il faut bii jóge fi daal mu gën a dox normal quoi. moo ne de njëg yi jàppandi na bu baax. instant nii mu ngi jar cent soixante-quinze deux cent waaw kilo bi saako bi bu dee vingt cinq kilo bi quatre mille cinq cent des fois ñu jaay cinq mille waaw bu dee pomme de terre local bi boobu sept mille cinq cent lay jar wala sept mille. riz bi léegi kilo deux cent lay jar boo daggee mu nekk deux cent cinquante mais fu mu toll nii doxul noonu quoi parce que soble France bi arrêté guñu ko yëpp mu ñu dawandoo ko moo tax. marché Castor wala Tilène seetlu bi benn la soble bi ak pomme de terre bi ñuy bayee fii ci Sénégal yegsi na waaye soble tubaab bi nekk ci marché bi ba léegi mooy waral gàllankoor di am ci wàllu njaay mi. ñu jéem seet nañu ñuy doxalee affaire bi pour baykat yi mën a maanaam ñu teel a arrêté ah, koy teel a kay man day ñàkk sax ñu ñuy ñaan nguur gi gën a bàyyi xel ci situation yu mel nii leneen lu ñu seetlu ci jàpp bi mooy limon bi moom de kenn gisatu ko wala su amee itam cher na lool kilo bi jóge ci 400 dem ba ci ñetti téeméer. yëf yi ci lu muy dëkkee la xam nga bu baree ñu wàññi ko mais bu seeree tam niñ koy def bu amul noo koy def bii du période limon. ma ne bàyyi kii yoog ba nawet yooyu rek. ñu lay commencé am kaatu tuuti. dooleel li ñuy bay fii ci suñu réew doon na lu am solo ci wàllu koom-koomu jaaykat bi wala baykat bi nekk ci réew mi ñuy yaakaar rek ni balaa yàgg seeni marchandise dina jar bu baax. waaw en tout cas ñoo ngi lay euh, gërëm euh, vraiment cay suñu lekket bi euh, mm. sànq maa ngi koy wax soble bi sénégalais bëgg na soble lool mm. waaye nag yaakaar naa ne ci biir label bi lu ñu def baax na parce que tey jii ci mm. premier avril bii dañuy arrêté soble ba nga xamante ne bi dañu koy jëlee bitim réew fas yéene nag jaay suñu soble bi pour que nag baykat yi tamit ñoom tamit mën a am seen wàllu dëgg waaw waaw yaa xam ni nga ko waxee noonu la premier avril bu ne nag dañu daal di tëj pour soble bi nga xam ne dañ koy jéggaane ñu arrêté ko mm-hmm. wante ni nga ko bi mel na ne même bu fekkee ne arrêté ne ko marché bi tuuru na ak soble importé ba nga xamante ne bi nga xam ne moom la ñuy bay fii xëy na du yomb pour mu écoulé wu ba jeex donc euh, mesure la boo xamante ne ñu ngi koy def depuis ay années mm-hmm. euh, mais li ci am solo rek mm-hmm. lu tax ñu indi tey sujet bi mm-hmm. mooy euh, comme ni ma ko waxee avril saa su taxawee dañu arrêté soble bi ñuy jéggaane pour suñu baykat yi mën a jaay seen soble wante itam soble bi dafa nekk filière boo xam ne euh, suñu pouvoir public yi wax dëgg neex yàlla at yu mujj yi def nañ si ay jéego yu bëree bëri mhm. euh, déjà commencé aménager yoon bi nga xamante ne soble bi fa la gën a bëri yoonu mhm. bayaax bi mhm. euh, diggante Léona Potou ak ay mboorook yooyu yëpp ay zone la yoo xamante ne soble bëri na fa trop trop ak itam ñu ngi may wax ay booru booru booru am na fa muy lu am solo lo xamantene vraiment ya xam mhm. euh consommer local bi ak mhm. consommer sénégalais bi mhm. nit ñi war nañ see mëna japp xam nga lu tax ma wax nak ci bépp fan lolo tax ma andi soble bi wante sank ya ngi gis may ré <laughs> parce que ci bir élément bi ñu ci gis limon nga xadi di di di ma naan lu limon di ut ci soble ma ko dañ koy faral di di ko lu parce que bima gisé limon bi dama ñaan mané wa may tamit limon bi lan lay ut ci soble si <laughs> vraiment yaasa ko da soble yaasa rek ñu ci mën <laughs> mais mais tamit tey si

tout à est ce que xam nga la donc euh, gis nga et loolu économie réew loolu rek la. maanaam nga fexe ba yow nit ñi li ñuy lekk nañ ko bàyyee fii. Mhm. nit ñi li ñuy sol mhm. nañ ko defaree fii. Mhm. Euh, yu ak yu demee non gis nga yenen yi ay genre xeetu bu ñu mesure protectionnisme la. manam mhm. dañuy jël. Mhm. dañuy protéger ben filière. dëkk yu mag yi yépp koy def. Mhm. xam nga euh, day tax ñi nga xamante ñi ngi dund. ci filière bi. di ci nek di ci yaakar pour dundal seen njaboot. am la ñu mën a dundee. bañ subiru concurrence. produit étranger parce que produit étranger aussi. li ñu ci wax mooy ay produits yu bess dañ koy bay ay. stocké ay voilà stocké. y a des problèmes voilà yóbbu andi ñu ko fii te bu ñu koy andi fii nekkul yu baax la ñuy andi <laughs> waaw non boo xoolee même boo xoolee mm-hmm. keroog maa ngi na seetaan télé benn documentaire ñuy wax pomme yi yóbbu Afrique mm-hmm. Mm-hmm. waaw pom yi nga xamantene dafa bëri tâche. Mhm. xaw ma nu mais gis nga Abdourahmane gis nga ah. du ci du ci sax lolu rek ay pomme de l'heure de. même avion li ñuy wax avion yi ñuy yobbu Afrique bokkul ak avion yi dem fële. <laughs> non mais je suis sérieuse donc c'est pour dire que lolu ci bir lolu ñun dañu am fulla wi. di consommer li nga xamantene ne bi moom la ñuy def. di ñaan yàlla rek euh man. sax euh, peut-être que ñu bëri euh, ñu mhm. war nañ ko mën a xàmmee mhm. euh, baax na nga jox anam yi nga xamante ne ni moom la ñuy xàmmee soble local bi mhm. ak importé bi couleur yi déjà je pense que ne couleur yi nduroowuñu soble local bi mooy bi nga xamante ne day xaw a mel ni lu concours xëcc tuuti rose wala violet waaw donc neex na xàmmee bëri na tamit yëre mbubb xaw ma mbubb laa koy waxee xaw ma mooy li nekk ci kaw waaw kañ dafay bëri torop mais nag par contre am na tamit ay frein ak obstacle yo xamantene xeyna moy tax ba ñeneen ñi dañuy préférer jël soble euh des na tay ba euh, emballage bi parce que ku mm-hmm. xol xam ne mm-hmm. saaku soble yi nga xam mo andi won woon ya jóge bitim rew mm-hmm. ñu ci bëri yoy li ñu jël di suñu soble bopp comprendre c'est la chaîne bo xamantene vraiment lool war nañ ci mëna taxaw mais aujourd'hui je pense que la la principale question ya xam c'est quoi moy est-ce que avril bi ñu japp pour geler est-ce que taarul trop est-ce que jarul ñu ñuy euh, stopper importation bi mu gëna tel pour bu ko défé mu baña a fekkante ak période bi nga xamantene soble mbay bi ci lay guen très très bien en tout cas lañu ñu ci jublu euh, dal vraiment moy que dal ñu consommer toujours sénégalais donc mm-hmm. label 221 tay nak ci mirum soble la won en tout cas ñi ngi lay ñi ngi lay mm-hmm. gërëm di la sant bu baax a baax. oui lenn rek la ci wax parce que suñu soxna yi ñoo ñuy togal euh, suñu sœur yi yeeg tout mais damay seetlu ni euh, soble mbay bi il faut aussi tamit ñu bàyyi benn xel parce que jigéen dañuy wax soble mbay bi dafa bëri ndox. Mm-hmm. loolu moom dañ koy wax dé <laughs> dañ koy wax est-ce que tamit loolu yokul toujours ñuy préféré beulé mais gis nga xam nga xam nga

en tout cas <laughs> Maï, il est remercier